nu métti mais loolu ñooñu dañu battre campagne mm-hmm. contre la liste mm-hmm. ñooñu dañ né bu Barth jallé mom mm-hmm. moy mom taxaw mom mo nar a nekk candidat bi ñooñu battre ñu campagne baatuñu campagne baatuñu campagne. ñooñu ah, dañoo <laughs> ñooñu bëgguñu woon Barth jàll réussir. c'est la vérité. mais par contre ñi ñom ñet ñi dajé feulé par faute de moyens et faute de logistique. ñom Anta ak ñom Thierno Bocoum ak ñooñu foot de moyens foot de logistique. Mm-hmm. mais ñooñu ils se sont organisés ak le peu de moyens. Mm-hmm. moyens yi ñu leen yaakaare won amuñu ko parce que le temps permettre leen won ñu am ko. Mm-hmm. mais ñooñu si si si si moyens de bord yi lañ doon démé ñooñu ils comptaient sur l'intercoalition nationale. motax bo xolé problème amul ci ñom ci côté intercoalition yi. buñ démé ci yenn zone yi kan lañ wara jox ñom fi amé problème mo ci liste nationale parce que ci liste national bi mooy bu Khalifa Sall tegee kenn ci kanam keneen ki nga xam ne ni moom la teg treizième quatorzième mm-hmm. parce que dafa am lu lu loo xam ne dafa feeñ ci intercoalition bu njëkk ba te mm-hmm. Ousmane Sonko corrigé ko mm-hmm. parce que Ousmane Sonko dafa dem élection président euh, locale nitam yi ne ko gars yi dañu danga nga fal ay nit législatif mu ñëw ñu ne Ousmane Sonko tey bu demoon ak Pastef kase heure bi dina am député yu doy Ousmane Sonko loolu la gis mu moom mi mu def évaluation lan la gagné ci intercoalition. Mm-hmm. looloo tax mu jël Pastef ñun fii lañ toog ma ne la dynamique bi d'accord naa ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que dafa xañoon partem lu bari. Mm-hmm. ndax contexte bi Ousmane Sonko moo xewoon nekk héros. contexte 2021 bi Ousmane Sonko moom moo nekkoon victime. ñoom ñu ñëw def ko capitaine. mu nekk bii ñu jëm nii bi ñu nekk nii Ousmane Sonko loolu mu toog mu falu mu xam ne grace bii ñu am nii deux ans un an yii nii. moom moo soxlawaat moo tax bi yoon mm. si stratégie politique moy mooy Pastef lay lay ancré. Mm-hmm. la Pastef lay mm-hmm. préparé. Mm-hmm. parce que ñaari élection yi dafa xagn Pastef. parce que ñaari élection yi pour mu gën a ak Macky Sall il fallait que mu séddoo tenor opposant yooyu. lo def té loolu la def. Mhm. motax bi mu si mu jouer loolu. Mhm. Ousmane Sonko mo ci mhm. parce que par l'expérience bi mais Khalifa Sall ñom ñi daan def ay alliance gis nga depuis intercoalition yi di am. dañ doon perte PDS ni mu investir. intercoalition bi dafa am ñu mu xañ. gis nga loolu lañ jàngatul ba tey. mooy pur. consigne bi député cinq députés waaw waaw ñëwaat ci élection bi. nga gisaat mm-hmm. soxna ba mu nekk ci souf keneen nekat ci kaw. Mm-hmm. question bobu ndax légui ñin ñi nekk ci biir parti sax même parti religieux yi. bu mm-hmm. est-ce que ñu ngi accepter ndigal. l'appétit c'est-à-dire lool dafa ci on n'a pas eu le temps d'évaluer les conséquences les maires de yewi la yi ñu faloon ba sur la base de yewi biñu dawalé ba élection législative yu jall ñaata maire mo tass coalition boobu parce que kenn ku si ne da ne mairie bi ki ñu fal ñun ñoo ko falandoo waaye da nga faa teg sa nit rek fat waaw waa PS ñoo téye maire bi Thiaroye sur Mer ñun ñoo faloon maire bi taxawu la waaye lijjantiwul waa waa waa kii mm. ñeneen ñi ko falandoo mm. yooyu yëpp dafa feeñ ba pare mu ne erreur bi ñu def mooy ñoom ñu ñëwaat reconduire les maire mm. maire yi nga xam ne taxaw moo yooyu moo leen faloon mm-hmm. maire yooyu ñëwaat nekk tête de alors que maire yooyu ñu ngi nekk en conflit ak seen alliés yi ñu nekkaloon loolu day nekk conséquence mm-hmm. beneen bi Amadou Ba ak Macky Sall mais qu'est-ce qui s'est passé Amadou Macky ñu ne amoon na protocole ak ak ak ak ak ak mm-hmm. Ousmane Sonko ñu dem ba ci biir ñu gis radicalisation Macky Sall contre régime bi mm. non contre pouvoir bi oui oui oui loolu lu lu bees la surprise la mais loolu bi mu yegg ñëw. parce que protocole laa yàqu. waaw li li yàq protocole boobu te Madiambal Diagne persiste et signe. Mm-hmm. ne suñ ko waxee mu indi preuve yi teg ko sur la table. Mm-hmm. te kenn weddee ko. te kenn weddee ko. Mm-hmm. léegi kooku bu fekkee ne dafa ñëw ba ci fin bi. mu ñëwaat dugg ne il faut mu jàkkaarloog régime bi. ñëw indiwaat yegg si bëgg ñëwaat àndaat ak Amadou Ba. intercoalition Amadou Ba li mu wax fii dama cee d' accord. parce que waa APR. conflit Amadou Ba bi ak Macky Sall dafa dëkk dafa feeñ ci biir élection si si kii bi. Mhm. parce bi ñuy waaj dem élection am Macky Sall dafa dàq nitu Amadou Ba yëpp. Mhm. ñoom Cheikh Omar Anne ñoom ñëpp. comme comme Omar Anne léegi nag. Mhm. booy wax kenn ku nekk man li ma d' mooy. kenn ku ne ñu ne la ban faute nga def. parti socialiste. musul évaluer boppam. déedéet parti socialiste depuis mag ñi di fi dem. depuis ñëw Aminata Mbengue ñu jël poste yi nekk Benno Bokk Yaakaar dañoo fàtte woon base bi. xoolaatuñu woon seen bopp ñoom ñëpp ñu toog fa def mm-hmm. élitisme bi mm-hmm. kenn seet kenn évalué wul seen bopp mm-hmm. léegi nga ñëw yegsi parti réew mi musul évaluer boppam depuis élection yeeg défection yeeg yëpp benn député bi ñu amoon musuñu évaluer seen bopp léegi nga boole loolu yëpp nga dajale leen ci benn coalition ñu ñëw ci coalition boobu bi ñuy séddoo coalition bi ci biir dafa am ay défection Pape Diop dàkk kontaanul Idrissa Seck kontaanul euh, mais ñoo ñëpp intercoalition pour mu meuna am munul am ci quinze jours munul am ci un an parce que li len wara bolé pour ngeen fédéré moy limu wax atel bi waroon exister mhm, ñu am cadre bi xam nga dañu tek atel rek commencé la démocratie rek gaay yi Ousmane Sonko enclenché assemblée mhm, nationale mhm. nous ñu ñu nous élan bi bi mu brisé élan bi ñi ñi naan assemblée générale assemblée nationale de minimum élection c'est octobre qui les janvier lay meuna am wala wala février mais ñu bari calcul bobu lañ nekkoon dernier décret jomaay bi am na ñu mu jiix jiixal seen xel. Mhm. mooy Ousmane dina def politique générale boobu mais ñun ñii sax ñu fi naan la jomaay bu ñuy lan lay wax. Mhm. dëgg c'est-à-dire loolu aussi tamit parti politique yëpp dañu calculer woon bu ñu jógee ci élection yi un parce que parti bu dem élection présidentielle. Mhm. un ñëw six mois doo amati dara. sa base day tas surtout parti bu jógee woon au pouvoir xool ko ci histoire politique yëpp PDS bi mu jógee au pouvoir mu tas. Mhm. bu ba mu ñibbisi waatee mënu la woon indi lu dul ñaata député. Mhm. Mhm. bi tamit APR pour mu rebondiraat il faut que ñu am courage opposé wu. il faut ñu dem xeex. mais loolu dafa naa ne moom. c'est-à-dire dafa dafa dañu bañ xeex bi. c'est-à-dire loolu c'est le courage de l'opposant gis nga Ousmane Sonko dafa jóge Forest ba yegg si fii. APR dañ koo daaneel ci pouvoir moom moo jóge ci pouvoir bii. pa eh, eh, innovation li ci bees mooy APR ak APR ñoo xeex ci kaw ci ci ci yi ci ci ci ci kaw. Mm-hmm. entre pro Macky ak pro Amadou Ba. loolu moo bees loolu nag il faut ñu corriger ko ñoom dans l' avenir soit mm-hmm. Amadou Ba jël yoonu boppam. Mm-hmm. ba structurer boppam organiser boppam. APR continuer te Macky Sall def na ko sax si début tas na part allié yi reprendre partem. foog moom it mu structurer partem. Mhm. organisé par thème ñom ñu ne ñu restons dans l'opposition opposition il faut mu aussi tamit bu ñu démé ni parti yi il reste dans l'opposition là c'est très facile nga organiser ay bloc wala nga organiser ay alliance mhm. parce que lolu mom moy mais lolu amuñu ko ci temps bi Ousmane Sonko en profiter temps mu def ko mhm. facteur temps bi mais il faut ñu accepter ni opposition bi nekul won favori ci élection yi non non ça c'est clair. amul woon moyen pour gagner élection yi. amul ñu temps def intercoalition pour def l'élection. Euh, euh, euh, ils ont été ils ont été piégés parce que xam nga Qui taille kii mm. tey 64 jours si si si le conseil constitutionnel wax da nga publier dindi parrainage nga xam ko yow. Mhm. ñi dem di préparer préparer wu ci lele mhm. nga ñew xey yew ne len dañuy dem élection té wañi nañu wañi nañu moment dépôt yi. Mhm. wañi nañu temps bi ñi def camp temps bi ñi def dépôt yi. mais loolu yëpp nga bëgg boole gaay ah, bëgg a waxtaan ñeent ak ñeent. abu abu abu abu en politique. ñun ñëpp xamoon nañ ni on va vers une élection législative anticipée. mais kañ mu neex ñu non déglu rek. quand tu fais de la politique tu fais dans l'anticipation waaw wala déet. c'est des partis politiques. Mhm. dañu am responsabilité. Mhm. ba changement de régime amee. Mhm. ñu xam ni dañuy dem élection anticipée. li tax takku juddu takku. lu tax Macky Sall dissoudre Benno Bokk Yaakaar. créer cadre bu bees bu tudd takku. c'était pour anticiper sur les élections législatives. loolu kañ la fee bi protocole bi changé. c'est-à-dire daf ci am temps table bo xam. kañ la fait bàyyil ma terminer kañ la la radicalité Macky Sall c'est-à-dire Macky Sall. c'est-à-dire la radicalité ak yooyu yooyu c'est pas important. ah non c'est important en politique so xamé cadre la wax politique waxuma la Macky Sall de. parce que Macky Sall n'est pas là. C'est l'Alliance pour la République là, mon mot forme de regrouper la famille libérale pour mettre en place une coalition qui se nomme TACO. Mm-hmm. C'était pour préparer les élections législatives. Parce que Macky Sall, ak nu mu mënti demee da doon dem élection législative. non bloc bi jiitu na li no non le bloc des libéraux. jiitu na déedéet gis nga bloc des libéraux. initiative bi jiitu na élection présidentielle. abu abu le bloc des libéraux. PDS bokk na dañ mais bi ñuy daj. déggaluma la bañ koy dajee di jël initiative bi. pour hmm. def les blocs. ñoom Fada di ko proposé ñeneen di ci hmm. waxtaan ñu ciy dox bi ñu ko njëkkee def fi sax dañu leen doon reetaan naan paa yooyu créé nañu benn. nangam nangam jiitu ko mais boobu boobu loolu Macky Sall def communiqué ne Benno tasna. na ci le ne ba paré inviter les partis de Benno à venir rejoindre un un nouveau cadre. daf leen inviter dans le communiqué. bam len invité dans le communiqué bobu ñom ñi ngi dox sen dox pour mettre en place le takku. pendant biñuy dox sen dox di mettre en place le takku Amadou Ba mi ngi bëgg lancer son parti waaw le dit fi lañu fekk. c'est ah. normal. n'est-ce pas bañuma lolu parce que aussi il faut anticiper les cadres ba ba takku takku di def limi def. Amadou def li muy def mais attends le sàmm sa jikko non pas réfléchir parce que sàmm sa kàddu ñu ngi taxaw di xaar l'appel de du régime non non ñan. excepté non déglu j'ai dit sa kàddu mu ngi xewee. ca ca benn jour waa déglu waa parce que peut-être la le taxawu Sénégal. Mm-hmm. peut-être Bougane bokk ci yoon. Mm-hmm. parce que Bougane dafa jëloon yoonam. Mm-hmm. Anta Babar. ñeneen ñi demoon candidat à l'élection présidentielle yëpp kenn bougé wu ci. Mhm. Bougane taxaw opposé wu volontairement mhm. mais ba muy opposé wu volontairement taxaw radical préparé wul élection législative. Bougane nga wax loolu. parce que sooy préparé élection législative. Mhm. da ngay dox di di waxtaan. parce que la takku la takku laa judduwul ci benn fan. ay waxtaan la processus la bu gudd boo xamante ni des des jeunes des partis se sont retrouvés pour mettre en place ce cadre là n'est-ce pas puisque élection Sénégal dañoo tam di dem di dem coalition fii di dañoo dañ ko tàmm depuis l'avènement de Wade jusqu'à présent mm-hmm. les gens devaient préparer ces élections législatives là mm-hmm. lu mu gàtt-gàtt ils n'ont pas eu le temps certes de le faire mm-hmm. mais la coalition l'intercoalition takk wàllu ak euh, sàmm sa kàddu kañ la am kañ lañ ko waxtaane ba ne Dakar dañuy ànd ensemble ba ne Pikine dañuy ànd ensemble déedéet avant qu'on dépose les listes mais c'était pas sincère wax nañ leen ko fi. non déglul bon waxuma la bobu jamm ak jëri ñëwagul des négociations ont eu lieu. entre qui qui. entre le takku wallu et le sàmm sa kàddu. Mhm. pour la parce que liste département Dakar. naka la demee ba tey. waaw ci intercoalition bi. Mhm. bon naka la démé ba par exemple ñu d'accord ni dañuy and ci localité yi té d' ci yenen gox yi. Mhm. parce que dafa am gox yo xamante d'accordu d' ci. par exemple fu melni ni Kaolack d' accord dans le cadre de l'intercoalition Mhm. te su ñuy wax intercoalition nag dañu war a d' ci lépp. Mhm. ci zone yëpp pour pouvoir préparer. mais amuñu woon base yi xam nga lu tax. non Adis naa la intercoalition wu wallu wàllu dañoo tegoon tableau li ñu am ci local. élection locale. si la mhm. dëj ñoom ñoom si lañu ñu servir. fu ci nekk. kan mo wara nek nekk tête de liste bi. Mhm. ci élection mairie yi ñu génnoon 6 mois ñu teg ci élection législative. xam nga nak politique mais biñu ñu yegg si bii politique amul fenn abu foy a taw basé wu ni ki li mo wara a def wala def. politique da ngay adapté wu. non par non politique da ngay adapté wu rek tu t'adaptes. da ngay adapté wu politique da ngay adapté wu par rapport à une situation. Mhm. pourquoi Dakar les gens ont dit que le taxaw Dakar aura plus de députés. Mhm. sur les 7 députés. ñom 4 yi lañ jël pourquoi ci ban coefficient lañ ko pourtant élection présidentielle. taxaw warul député parce que Sénégal euh, Macky Sall Amadou Ba le Benno ëpp voix mais cadre vous savez pourquoi parce que cadre bi il dirige les mairies. Bah, il dirige les mairies du département. pour faute de logistique. logistique aussi parce que politique c'est-à-dire hein. on analyse une situation politique. on n'est pas en train de soutenir des responsabilités. Mm-hmm. parce que les New wax c'est pour se corriger. Mm-hmm. parce qu'ils doivent corriger pour continuer à exister Si nous ne le font pas ils vont disparaître. Mm-hmm. ils vont tous disparaître. muy takku walloog.

non hmm. oh, mais parce que dafa def erreur dafa jang ci erreuram ci yeewu wala lam ca perte Ousmane hmm. a su de mom dafa fa ay député dafa far ci léegi léegi Abou hmm. dans le cadre de la massification lan la taxaw taxawé dans le cadre de la massification pour monter les cellules au niveau national mais pour yow nu mu mais amul lépp gëm sa bop amul arc amul après, c'est parce que dañ nekkoon pouvoir ba ñuy nekk opposition defoon nañ ko mais après mm-hmm. amul mooy li nga doon wax gars yi dañ taxaw nekk ci élite bi mm-hmm. nekk sommet bi fàtte base bi mm-hmm. fàtte def le travail politique de base pendant ce temps le passé était en train de le faire ils ont laissé le terrain c'est-à-dire la base politique au passé mu récupéré ko ki nga xam ni dafa téye woon base am muy Farba Ngom moo xamante ne moo téye base am résultat yi dafa feeñ ki nga xam ne dafa téye base am gagné départ commune bi mu deuk parce que mooy ma euh, magasin quoi qu'on puisse dire il est. parce qu'il il avait coude. Eh, non defoon ndànk rek. sur le plan da jëlaal ku nek la mu la mu yoroon. waaw non naa chronoscope Farba Ngom la mu yoroon ci ala ak la ko Macky Sall defoon Fouta non da ngay jëlaale kenn ku ne li mu am. xam nga xam nga problème bi xam nga dañuy waxtan mhm. so jëlee ku ne la nga yor. Mhm. Amadou Ba était premier ministre il a perdu par Assainies. non mais lol yag na. waaw defal ndànk ba lay wax. Mhm. Qui, il était Premier ministre, il a perdu parcelle. Mm -hmm. Barthélémy Diaz est maire de Dakar jusqu'à présent, mm -hmm. il a mhm. perdu Baobab. Parce qu'on pensait que les bilans, on pensait. Dañuy waxtaan. xam nga Bart ñun ñi ñëpp tey dañu dégg bilan nekkete waa Dakar du bilan la ñuy basé wu. waaw defal ndànk rek Abou. sur le cas de Bart te loolu lu bees la. dafa am loo xamante ni. xam nga ko mooy base mais man li jàppoon naa ni Dakar waa bu bëgg Dakar waa fii base mm. politique dañ koy téye. Mm-hmm. dañ koy toppatoo. Cheikh il est maire de de mmh. il a perdu Mbour il est sorti 5e, cinquième e il n'a même pas 2000 voix. il est maire de Mbour. il n'est plus DGCDC. non ni mais. je reviens. c'est-à-dire je reviens je reviens. la Yewwi Askan bi géré wu woon benn mairie géré wu ñu woon benn direction géré woon nañu ay mairie géré wu ñu mois la ñëw installé abu mm. déglul mm. la Yewwi Askan bi ba ñuy gagné élection législative ba ñu yóbbu ba ñuy yóbbu ballottage la Benno Bokk Yaakaar mm. lan lañ affaire góor mhm. ils avaient des favoris. tu parles de gestion troisième mandat. tu parles de gestion même bu ñu dynamique bi dañu un ay consensus national. Moi, mooy la loi ak sàmm à côté. am beneen côté troisième mandat. wu Macky parce que Macky Sall la waroon. abu dañuy évaluer élection c'est dañu amoon ay lu favorable. mais Abou, il faut qu'on évalue. l'affaire Adji aussi les gens pensaient que c'était un complot d'état. c'était la communication ils ont utilisé l'usage de la communication pour avoir ça. L'opposition n'a pas usé de la communication pour y aller. Parce que, d'accord, que n'ont pas réglé le problème. je ne suis pas ton opposant. Non, mais, sur cette question, parce que vous avez demandé, c'est-à-dire nous avons la liberté. Mhm. parce que le comportement Amadou Ba bi ñu koy wax fii ak kii ak ni mu def ak fausse li mu départ gis na Amadou Ba mhm. li mu yéex a wax ak mhm. bii ko Ousmane Sonko tendre perche boobu mhm, période boobu Amadou Ba dawoon loolu samp mu dem ci lii bi nii bi mais yooyu noonu mais da ngay dem ci parce que man je n'essaie pas de te mhm. damay joxe suma xalaat par rapport à une situation man damaa jàpp ni quelqu'un ki a géré sa base politique a gagné mais base amatu fii mais bureau de vote euh, c'est-à-dire même bureau de vote a perdu son bureau de vote Sénégal. tu parles des individualités. j'ai dit je parle des Sonko c'est un phénomène comme nous le ko Il hmm. la phénomène les Sénégalais, parce que c'est un base Sonko coefficient Sonko coefficient Sénégal di dafa am ñu gagné seen base. parce que dañu base politique da nga koy gérer. waaw d'accord naa mais mais comme kan par exemple. politique coude rek ku yor coude rek. non attends dafa am ay port ay coude dafa am direction yoo xam ni ki ko yor. Hmm. boo ci jógee un mois mën nga téye sa base. parce que booy ñuy joxe poste politique yi hmm. tamit noonu la ñuy joxe poste politique bi Ousmane Sonko nee bëreet ba mu xamee day dem élection CDC la fëgg Fadilou Keita. Hmm. fëgg que le port ki nga xam ne moo yoroon sécurité beeg yor base beeg yor fii bi. Non lay demain parce que le rapport de l'argent avec les sénégalais et les militants et les responsables dafa déterminant ci élection émission politique tu mm-hmm. mm-hmm. j'ai dit politique ku base c'est ça la mm-hmm. vérité base c'est ça la réalité parce que renouvellement par exemple la base politique des hommes politiques Mhm. xam nga lu tax amuñu base politique dañoo xaar ba nekk am ndomba tànk doog am base. Mhm. mais soo perdee élection suñ la wàccee tu perds la base. Mhm. politique sa base da nga koy téye ba nga amulee dara. mooy relation bi nga am ak nit ñi démb ak barki démb. c'est ça la vérité. aujourd'hui ñi nga xam ni yàlla may na leen base seen localité gis nga xam nga dama yàgg wax ni élection yii. si chaque maire gagnait sa commune l'opposition allait gagner parce ils ont beaucoup

Moussa Faba, maire ñoy rang bureau mm. APR il dawalé 8 8 ans l'opposition de l'APR c'est l'APR mm-hmm. parti socialiste il joxé poste yi a jox bureau assemblée l'opposition de parti socialiste c'est parti socialiste mm. ah, ah, ah, c'est-à-dire lool la la ne la gis nga gis nga ci zone homme d'affaires yi ci zone yi di ñenn ñi bi ñu commencé côtoyer Ousmane Sonko deux ans avant di dugal. dañoo affaissé seen seen ki nekk fa investir fële. facteurs yooyu yëpp dafa feeñaale ci biir élection yi am na koo xam ne ni. day bokk ci parti comme li xew dakaar nii. ñoo am mhm. dañoo bokk man bi may wax keroog Dakar daf ne ma Khalifa Sall investirul kenn ci nitam yi démb yi ñoo xam ne ni ñoom ñoo nekkoon yàgg ci parti bi kon liste bi bu ñu ko voté du du arrangé wuñu mhm. donc loolu la parti au pouvoir aussi am na si ñoo xam ni. ñii ñu jëlaat tànn leen député te nekkoon ministre da ngay wax ak nit mu naan la ba mu yoree fonds yi ba mu yoree DER ba mu yoree lee mm-hmm. kiiw ma ko ci ñoom kon duñ ci moo tax un an yi ngay ñëw nii di ci si gars yi dañuy nek ci conflit ak règlement de compte mm-hmm. le temps que ñuy endurer le temps que ñuy ñuy ñuy accepter adapter ci opposition mm-hmm. le temps que ñuy libérer wu ci opposition mm-hmm. ko ci wo lan la la yow danaa la ki boko wote jot nako ki ba mu ñewé Ablaye saw ba mu yoré ministère bi bolé wu ma ca kee lonage boole yooyu yëpp boo ko boolee ci dama lay cité balaa muy daan dama lay cité ah. exemple après yo ma tàggatoo Thérèse Faye à mhm. garder sa base politique qui est, qui est sa commune Mais il avait gagné perdu les présidentielles. J'ai dit, ah, elle a, ah, gardé, elle a gardé sa base. Mhm. Biram Faye, il génn na fi àdduna ñu ngi koy vous perdre 10 jours dans la campagne il a gagné la commune de Fatick parce que est une base politique. non c'est la base de Macky Sall. la base de Macky on a perdu le département. Abou, il me terminer Abou, commune bi laa Abou, bàyyi ma terminer Abou, terminer malgré l'absence de Matarba et de Cheikh Kanté qui n'ont pas battu campagne Birame Faye a gardé la commune. Mm-hmm. pour Macky Thierno comment il s'appelle Abdou Abdoulaye Seydou Sow. Mm-hmm malgré la défaite dans le département, il a gagné sa base politique qui est, la commune de Kungel, mm. de, de, de, de Kafrine. C'est important pour un maire ou bien mm. un homme politique d'avoir une base politique. Mm-hmm. Nous savons base, ils ont perdu leur base. Mm-hmm. Parce que nous sommes au sommet, fallait nous nous nous nous nous Parce que, dis politique, base politique d'afti am solo. Base politique, donc, ce qu'on entretenir, du khalis, du dara moy yek la. xaalis non déglu rek. moy mhm. yek la yek je prends l'exemple d'une personne. Mhm. Biram fay su duggee fatik mhm. ko amone dëj dina la jaale ku am ngenté dina la jaale. jeunesse bi yëpp jox ko bok ça c'est important c'est important. looloo tax fatik jox ko lim ko jox. non fay pareil Ablaye Seydou Sow pareil. Farba Ngom pareil. yow kan mo tok fi ne Farba Ngom def na temps de forage ak temps d'ambulance c'est important en politique. Mhm. Nous, ñi leen gens ñu pourquoi pourquoi Bamba Fall dresse tout le temps une foule su qui est mhm. ku deele mu jaale la am il garde sa base. il a ah, un électorat non élection yi j'ai dit il a son électorat. Mhm. Bamba a son électorat qui lui est fixe. non damay non déglu déglu ah, Ablaye Diop à sa base ginnaaw que il nga rek ma terminer rek. xam nga politique bu ci ne. Mm-hmm. Ablaye Diop a perdu mais il a il garde sa base politique. Mm-hmm. la base politique de Bamba Fall se passe toute la mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo amatul base te dañ doon dressé ful dem ak barki démb bañ nekkee bañ nekkee pouvoir mënatuñu ko. Seydou Gueye mënatul dérese dérese ful. daan na dérese ful. mënatu ko daan na ko si da ko daan da ko daan dérese. Seydou musul dérese Seydou musul dérese. Seydou moom Seydou micro la doon dérese. non defal na non day day attention eh eh. non Alice non Alice bàyyi sa xarit yi ñuy wax. non Seydou non dama ne. ñooñu micro la non dama ne. non yow xam nga ne. non ñu dajaloo foofu dañu mos nañ fa dajaloo ñoom ñëpp Bamba Fall kii la. parce que il a été nommé.

liir nañ ko benn liir nañ ko vite fait. liir nañ vite fait. liir nañ ko vite fait projet de réforme. maintenant affaire loolu rek moo ci moo ci attiré attention. boobu nag c'est important suba lañ ciy débat. affaire affaire daal mais la surprise. la surprise de ces élections. Mhm. dañ ne dinañ ko woo. xool ndax dinañ ko jot mu dugg. Mhm. parce que aussi.